waaw bon, vous savez, euh, mais on est toujours dans le compagnonnage, mais mais les, les coalitions à l'Assemblée, les coalitions à l'Assemblée ont leur propre groupe euh, parlementaire. Euh, nous avons été ensemble euh, lors des élections législatives. Nous avons été ensemble lors des élections législatives. Nous sommes ensemble à, à l'Assemblée nationale. Euh, le groupe Wallou, avec lequel euh, nous partageons l'intercoalition Yehu Askanui, euh, de toute façon, jusqu'au moment où nous parlons, est dans l'intercoalition. Vous savez, euh, lors euh, du vote des budgets, vous étiez là-bas. Vous avez vu que la, la majorité des députés de Yéwi ont tous voté contre le budget de, de, donc de, qui avait été présenté par le gouvernement. Peut-être il y avait trois ou quatre députés qui ne votaient pas contre. Ça, c'est une cuisine interne. Et les députés aussi euh, ont leur responsabilité, même s'ils appartiennent à un groupe euh, parlementaire. Hein, le vote... Euh, du député, il est, il est personnel. Donc, euh, nous n'avons pas de problème avec Wallou. Si le Wallou maintenant a décidé, lors de la convocation déjà illégale du bureau de l'Assemblée nationale, de voter pour l'exclusion de Mme Mimi Touré euh, et, de, voter pour, pour la déchéance du, euh, du, du, statut de député de, Mme Mimi c'est une cuisine interne au, au Mais pour nous, le serment que nous avions pris devant les Sénégalais, nous, nous avons voté contre la déchéance donc, de Mimi Touré. Pourquoi Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes légalistes. Tout ce qui viole la loi, la constitution, le règlement intérieur de l'Assemblée nationale ne nous concerne pas. Nous n'avons pas, nous aucune relation particulière avec Mimi Touré. Hein Tout le monde sait que euh, euh, nous, Euh, nous, nous, nous, avons, nous avons même des contentieux avec Mimi Touré, parce que quand même Mimi Touré est responsable en partie de tout ce qui s'est passé ici dans ce pays. Elle a été le soutien de Macky Sall, elle a été le ministre de la Justice, elle est responsable du bilan de Macky Sall. Mais pour des questions de principe, quelle que soit l'adversité entre nous, que cela se fasse de façon légale. Et ce qui n'a pas été fait hier à l'Assemblée nationale, euh, lors de la convocation du bureau de l'Assemblée nationale. waaw amuñu benn problème ak wàllu c'est que dafa di assemblée nationale quand même dafa am ñaari groupe parlementaire mu am le groupe wàllu am le groupe yeewi donc groupe bu ne autonome nga pour ni nga xam ne gisee nga ko nga doxalee ko noonu may fàttali ni bi ñuy voté le budget donc du gouvernement wax dëgg yàlla waa wàllu ñu ci gën a bari bu weesoo ñaar ñetti wala ñeent ñu ci gën a bari ak ñoo yeewi askan wi ñoo bokkoon gis-gis bañ a voté budget assemblée nationale may wax rek ne dama xam ay wàllu ay nit ñu am fulla ay nit ñu am fal ak fayda des gens de valeur dans wallu donc du ma du sax xalaat di wax lu ñaaw ci ñoom politique nag lañu nekk kenn ku ci ne nag di nga am noo xam ne boo fa toll di nga gisee mais li nga xam ne xew na ci bureau euh, convocation bureau assemblée nationale bi ak bi ñuy dàq Mimi Touré loolu moom euh, du lu ñu rafetlu ñun du lu ñu rafetlu Mimi Touré bokkuñu parti au contraire Mimi Touré sax am nañu ay jaar-jaar yu metti te jaar-jaar yooyu euh, am na lu fi bàyyi lu tax ànd ñoo ak Mimi Touré mais nag lépp loo xam ne jalgati yoon la même bu fekkee ànduñoo yow bu nekkee jalgati yoon la dañ koy bañ parce que ñun dañ ne ren Sénégal dañu bëgg soppi doxalin bi bëgguñu justice bi nit ñi di ko utiliser parce que tout simplement nit ki yow léegi contre nga ko loolu la neex nga def ko loolu la ñu bañ moo tax ñu ne d'accord uñu ci li ñu def Mimi Touré parce que li ñu def Mimi Touré mën nañ ko def suuf mën nañ ko def keneen donc mënuñ cee d'accord parce que teguwul ci yoon waa wàllu nag ñoom ah ña nekkoon ci bureau ba jël nañu seen responsabilité d'accord parce que ñoom nee nañu si seen logique ba ñu nekkoon la ñu nekkaat parce que ba ñuy dàq Mbaye Ndiaye ak Cissé Lo lii la ñu defoon donc ñoom dañoo gëm ni mbay Ndiaye ak Cissé Lo dañ leen a waroon a dàq te comme Mimi def na ko ñoom aussi dañoo gëm ni dañoo war a dàq Mimi Touré donc ils sont restés dans leur logique ñi nga xam ne nag resté wuñu dans leur logique mooy ñi nga xam ni dañoo dàqoon euh, Mbaye Ndiaye dàqoon Cissé Lo muy waa APR yi tey ñu ñëw rétablir leen dans le droit fay leen xaalis 165 millions ñooñu ñëw ñëw defaat exactement la même chose contre Mimi Touré doy na waar Sénégal. donc man xanaa déggoo ma keroog yàgg na defe naa man euh, avant Ousmane Sonko di defar testament defar naa sama testament. parce que mois de mois de mars 2000 bokkoon naa ci nga xam ne ñu ngi woon ci kaso bi mu lu ma regretté lool parce que ci biti laa waroon nekk parce que ñi dee gaañu gënuñu ma tey laa gën a décidé pour xeex li nga xam ne moom ma xam ci réew mi bind naa samay chèque defar naa samay testament sama waa njaboot ak may seetaan kenn ku ci ne la nga war a am bindal <laughs>